voilà euh, tay dañ fi téwone man ak sama natango man la docteur Abdou Khadir Diagne centre de santé 28 euh don téwal district sanitaire bu Touba pour euh, euh inauguration complexe Cheikhou Khadim bu fekkee ne comme yenn fa fu mbolo dajé du ñak xeyna am ñu ci soxla seen wér yaram ay rëq-rëq ñu wara a jël en charge loolu moo ñu fi taxoon téw tay euh, ñu àndoon si tamit ak ay éléments yu croix rouge voilà ak euh, waa sami municipal waa sami national ñoom it euh, présent nañ pour appuyer ñu si ambulance ak logistique. indaale nañ aussi tamit peut-être ay ay garab ak les peut-être matériels médicaux yi nga xamante ne si. mën nañ ko bu fekkee ne cas bi nécessité wul évacuation jël ko en charge sur place on a aussi des du matériel médical et des médicaments d'urgence qui sont voilà à notre portée en cas de besoin. souvent les gens léegi ben déjà fait déjà fait. na amaguñ sax ben cas de consultation lañ fi am mais à part ça amaguñ ben malade euh, bu nécessité évacuation wala ben urgence. Euh, je pense que communication bi jàll parce que comme luñ programme à l'avance gars yi def nañ communication bi bon mu Et jaar aussi defe naa nit ñi baaxoo nañ xam ne fu mbooloo daje. waa kër docteur dinañ fa teew euh, pour mën leen a ànd ak ñoom gunge leen ci bis